gis physiquement honnêtement. yéen confiance la def. non li nga xam ne mu koy ragal si oui mais c'est pas le lieu de parler de confidence. mais retenez que monsieur Ousmane s'est adressé hier euh, aux Sénégalais peut-être au reste du monde il a des choses à dire effectivement le moment venu il les dira mais li ñu war a xam gis ngeen ko seen bopp il a le moral très haut. il est infrangible parce que yëpp jaaxlu ko ay jaar-jaar la métti na métti na trop mais bon lu mu sóoraale la. entre en politique dans ce contexte qui plus est aussi ci particularité bi Sénégal li li vivre actuellement c'est normal boo amul les idées bien en place et la détermination bien chevillée doo sori donc comme yéen tout le monde est résilient y a pas de problème quoi voilà c'est des couacs qui arrivent hein, qui se produisent war nañu am assez de hauteur pour xam ku ci nekk sa objectif lan la ñëlee am nañ seen objectif c'est dommage que la police peut-être euh, est là pour jouer ce, ce rôle-là qui ne pas du tout parce que mënoo ñëw recevoir ay kilifa ñun policier du ñu suñu naataango ñun procureur seen chef mooy suñu naataango ñoom bu ñu ñëwee rien que par respect rek war nañu mën euh, teral ni ñu ñëw teral leen wax ak ñoom wax bu rafet voilà waruñu fàtte nii ku ci am problème ñun ñoo ñoo lay solo robe défendre la donc mënuñu toroxal avocat nii du jour au lendemain nga ñëw waxtaan ba pare euh, tout le monde m'a dit que j'étais visé parce que ñëpp porter plainte contre X pour tentative d'assassinat voilà ak ñeneen ñi mag la ñu bi ñu leen di kii c'est pas bien rafetul mais nag aussi top dañu ñëw pour ànd ak suñu huissier parce que situation bi elle peut pas durer mënoo jël un citoyen xañ ko liberté téye ko ci condition yi tëj ko këram parce que Ousmane Sonko est en prison chez lui il est même pas en prison il est en cellule régime cellulaire lañ ko euh, mënul génn këram kenn mënul àgg ci moom mais loolu bu ñu ko defee comme si rien ne se passait loolu doy na waar. maître lan ngeen fas yéene def puisque nangu nañu ay téléphone am nangu ordinateur portable am euh, di koy daal di koy barricade accès interdit leen accès bi foofu noonu. yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp daañu ko faj incha allah bagage am danañ ci jotaat euh, voie de fait yi ñu ko teg nii euh, loi Sénégal yi koy bañ bare nañu. donc bu ci kanamee on va publier des éléments pour wane suñu réaction officielle ñëpp gisandoo ko su laajee leneen tam conférence de presse wala leneen dañ ko def mais liggéey bi mooy on va déposer des requêtes auprès de qui de droit bu ñu xam ne ay avocats lañ suñu liggéey loolu la parce que lii dafa touché mën nañ def référé liberté au niveau de la Cour suprême on le fera le conseil constitutionnel lui-même mën na prononcer wu ci li am sans compter que maintenant bu ñu duggee ci yenn euh, éléments yi on touche le crime de constitution de de persécution ci article 7 du statut de Rome bi tëral euh, euh, cour pénale internationale dafa bokk ci crime contre l'humanité te bu àggee ci niveau bu mel nii kooku dafay jàll facilement te lii tam mënuñu continuer bu ñu dem ñun parce que suñu dëkk Sénégal rek la ñu am ñun moi personnellement je suis inscrit à la cour pénale internationale depuis 2011 mais rus naa def procédure contre mon mais su dee moom pays damay dox ñu may bëgg a rey léegi sama bakkan la ñu bëgg a jël mais quand même yenn nit ñàkk fayda wala lan la. taxawaay hors des avocats ndey parce que nag bañ lay gazé man maa ngi taxaw ci sa wet je comprends pas parce que dañ doon waxtaan jékki-jékki rek gis la gaz lacrymogène tàkk dama ne yàlla moo bañ rek waaw da wa ma kunna li nahtadiya law lan adana llah mais avocat boo ko condition yi mais am na ndam na àjjana ba pare ñun dañuy def suñu liggéey rek pour rencontrer un citoyen persécuté te wóor na yàlla billahi lasi la ilaha wa bu doon citoyen boobu Macky Sall wala kaneen on ferait la même chose parce que ñun suñu serment loolu la mais rek ngay wax si poliment tourner le dos di dem ndi ko yow mu ngi bëgg a faagaagal c'est extrêmement grave mais ça ne restera pas impuni non daañu def suñu liggéey moo suñu kilifa ñun ñoo ko fal conseil de l'ordre ñoo ñu yore ñoo ñuy gérer ils vont ils vont ils seront en temps réel. li war nag aussi ngeen déglu rek dégg nga o waaw salaam salaam merci beaucoup. maître Cheikh Khoureyssi Ba. Khoureyssi Ba maître Cheikh Khoureyssi Ba.